ñoo dégg ab reversement parce que jàngalekat yi tooguñu ay weeri weeri weeri weeri di doog a ñëw récupérer seen xaalis kon képp ku ci am jafe-jafe moom bu ko muutuwaale wax ñu ko luñ ci war a def ñu def ko te nag li am solo mooy problème bi nekk nekkatul IDEN la bokk wala CELS la bokk jàngalekat lañu ñu war a jël teg ko te loolu moo am tey fii SG bu fi wane ni nii laa toll tey meloo ni jàngalekat yi ñoo ñëw wuy si ñu kon tant que yéen ñuy suivre personnellement dañ leen di suivre ab secrétaire généraux yëpp bu ñu leen toppee li ñuy wax ca kaw lañ koy dégg wala ci seen naf yow réunion woo waxtaanoo ba pare ni bu leen grève wala grève leen lu jar grève génn leen ngeen ànd ko ñun ñu grève te la preuve mooy gis nga foule bii li muy ndaw ndaw ndaw amna solo parce que kii Taïf la jogué amna ñoo xamni ci all bi lañ jogué lolu moy suñu réussite on a réussi aujourd'hui te lolu yeen yéen ko wane te nak buñu waxanté fofu lay laay